asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñoo ngi fii ci daaru Kosso ba tey ñoo ngi taxaw ak euh, monsieur le maire euh, bu commune bu Badiane ñu Tawfekh Production di la nuyu tàllal la suñu micro fekk la ci sa kër ay mbokk sa kër yi xarit sa kër wëllëre nga teew fi teewaay yu bare bare bare bari boo doon sànni ay kàddu tey ana yan kàddu ngay sànni ci bisu Serigne Mahmadan bi nii. waaw bisu Serigne Mahmadan bi maa ngi nuyu ñëpp di wax la anna muhammad rasulullah di jël ci yonent bi sant sëñ Touba sant maam Thierno borom daaru sant nag sëñ Matar um sëñ Mahmadan parce que woote ñu wuyu la dafa neex te bés bi vraiment li ñuy wax ne dañoo dafa ala daawame parce que nit ñoo ñëpp wuy si nañ taalibe yeeg yëpp ñëw ñëw nañ autorité ñëpp ñëw nañ waaye nag li ñuy def rek kontaan ak mbëgg di ñaan aussi sëñ Matar ak waa kër sëñ Mahmoudane yëpp suñu borom yàggal leen fi ñun ñu yàgg teewee bés bi waaw bés bi suñu bés la parce que bésu commune Mbadiane la bésu arrondissement daaru Moussi la bésu département Kébémer la mën nañu wax ne bésu région Louga la parce que lu toll ni daara muy daaru koso nga xam ne mooy dëkk boo xam ne sëñ maam Thierno borom daaru bu fanaanu laan Darou Moussi daaru koso la daan fanaan si bon mooy dëkk boo am importance la buñ demee nag ba lii génn fi daara ji nekk fi jumaa ji vraiment macha allah nekk fi bon ci njiital sëñ Mahmoud Matar dañuy ñaan mu yàggal ko fi ak waa kër sëñ Mahmoudan yëpp ñun yàgg fee ñëw yéen di am mbégte ak sant Tawfekh Production gis nañ leen bi ñu leen gis bi ñu xamante yàggul mais gis nañ seen taxawaay ci wàllu diine man li ñuy ñaan suñu borom yàggal leen fi gën leen a yokk taxaw njaboot gi barke liggéey bi ci barke sëñ Touba barke sëñ Mamor jërëjëf ah, jërëjëf monsieur le maire ku dégg ni waaye xam ne mbokk mooy wax ah, ñu lay ñaanal it yan bi woyof ah, ngeen yeggale jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak uh, Tawfekh Production ñoo ngi fii ci Daaru Koso ba tey waaye ñu ñëw toog ak suñu wayjur suñu sëriñ uh, sëriñ Cheikh Assou Faye yaakaar naa uh, mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci site bi duñu duñ leen wax kan mooy sëriñ Cheikh Assou Faye di kenn ci njabootu borom Daarul Moxti di eh, nit koo xam ne njariñam akuk baaxam ak liggéeyam ci lislaam eh, daj na fépp ñu di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi lool guddal aw fanam eh, ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal maam ak sëriñ Mahmadan mu yeggale ko fu kawe njortam sëriñ Cheikh Tawfekh Production moo ñëw fekk ci sa kër fekk la ci sa bis muy bisub Daaru Koso ñu tàllal suñ mikoro rek na sànni ay ñaan ak ay kàddu yoo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo ci barab bii bismillah. jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yéen ngeen yàgg fii ñëw fekk na fi te ma ànd ak jàmm ak ak bis bi nag bis bu rëy la ci nun ndax ki waral bis bi ak dëkk bi ko waral. lépp day ndigalul sëñ Tuubaa ndax keroog ba nga fi borom daaru di yebal si moom sëñ Mahmadan dafa fekk taalibe yi bëgg koo sancal ca njigal diggante njigal ak Tayba Njaañ mu dikk wax borom daaru loolu mu ne ko déedéet koso day dëkk bu ma fonk ndax sëñ Tuubaa ma ko digal ma sanc ko lu ma fa mas a bayit moom laa ko jox kon bu ma sañoon da nga fay dem toogal ma fa mu ne ko ah man day boo ma ñaanalee la nga ca bëgg danaa ko def mu ne ko soo demee Mahmadam na nga sax ci jaamu yàlla ak liggéey ndax ku liggéeyut ku ne su la dina bépp doon joxe dañuy wax liñ koy jox fu mu jaar ku jaamuwul yàlla ku ne it boo demee bis penc danga nga mere ku la deful dara kon boo demee saxal ci yàlla mu ñëw fii nekk fi sax ci loolu mosu cee jóg benn yoon sax ci tool yi di liggéeyee lu mu liggéey jox ko sëriñ bi waaw mosu fee liggéeyee gerte wala dugub te yutu ko borom daaru ñu borom daaru nekk ñëpp fekk ko fi fekk nag borom daaru waxoon na ko loolu nee na ko sax dana ñu la ne kosa day dafa amul gannaaw mm-hmm. soo bëggoon mbooloo doo fa dem mu ne ko soo demee toogal rek. mbooloo mi ñooy jógee fañ na dikk fekk si la koso loolu ko borom daaru wax mu dikk toog waaye ci loolu waaye ci jaamu yàlla ak liggéey soo dee jàng si mu jàngal boo dee tarbiyewu mu indi la ci daara ji danaan wax naa mu kàllaf kenn du ko ne doo taxawaalu waaye sañ nga ko ne nag doo taxawaaloo fi man waaw fi nekk boo dee liggéey su la neexee nga liggéeyal sa bopp bu la neexee nga liggéeyal waaye liggéeyaloo ma liggéeyaloo sa bopp daal nekk ci dëkk bi taxawal moom du am waaw ñi mu jàngal ñëpp it la leen doon wax góor góor leen ci jàng mi ndax balaa ëllëg ngeen wari fas di wuti ay taalibe bi te loolu du wéy te jàng day wéy lii la doon wax ñi mu doon jàngal ñëpp nga xam ne ñi ñëpp ñu bari fi la ñu jaar waaw boo déggee eh, woykat ba di woy daf ko limaloon ñi mu jàngal ñëpp mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu ko limaloon ñoom ñëpp nga xam ne waa kër borom daaru yi mhm. ñu ci ëpp moo leen jàngal mhm. waa kër sëriñ Tuubaa yi sët yi ñu ci mhm. ëpp moo leen jàngal ñu ci jaarul fii amut mu way ci nag liggéey ak jaamu yàlla <coughs> am na benn bis dafa maa woo ne ma dajaleen ma waa dëkk bépp ma woo waa dëkk bépp ci pénc bi mu ne leen damay layoog yéen balaa bis pénc di ndax kenn ku ne da nga layoog sa sa mbooloo man nag damay layoog yéen fii bala may layoog yéen ci bis pénc na ngeen maas ci jaamu yàlla ak liggéey lii ma leen di digal na waxtu bu ngeen gisee ma jóg ci na ngeen xam ne man maa jàddu yoon waaye yoon ma ma nga mu nekkoon te na ngeen ma ñaanal leen ma dëpp lii lii lii la leen waxoon lii la waxoon waa dëkk bi keroog keroog góor ak jigéen kenn desut waaw ci lii la saxoon nekk ci ba dëkk bi ak si fii li muy ñàkk ñàkk ndox nga xam ne booba ñu roote ji Touba ba yàgg ñuy roote mesere bi maam Balla bennee teen bi ci mesere ñu di fa roote ji bi daaru bënne mun a ah ñàkk ndox de jeex noonu ginnaaw daaru am na forage te booba root mi ñeenti ponk lay dem rooti yor ay baam sauf ci ay wiir dikk ko indi waaw am na ci boo xam ne bii dañoo yenu ndox mi bi ñu yenoo ñoom fukki ponk la dañoo yoñ bañ waar yi yenoo ko mbayeen mesare mesare biñ tolloog mbayeen am ci ku jaan mat mu woo jëwriñ ji ne ko jande damaa mat mu ne ko bu ndox mi tuuru rek ndox mi daal lu yàgg-yàgg moom bu mu tuur ndax sëñ baa ñu ñëw fii ba mu dikkee ak si sëñ bi ne ko jànde damaa matt mu ne ko fu mu la matte mu ne ko ba may jub mbayeen sëñ Mahamada ne ko wàcc na demal waaw nag ci la saxoon ci la nekkoon moom la daan digle lu mu lay digal lu ne day fekk moom mu nekk ci bàggale soog lu koo digal waaw du la wax lee nar lee mukk ci àddina loolu la nekk woon ci dëkk bi ku fi nekk ku ne it na la ci aw yoon tarbiye na la yee na la dama leen di wax njàng mi lu muy baax baax yeete bi mu lay yee ci àdduna yee bi mu yee ci sa diggante ak sa borom mhm. yee bi mu lay yee ci sa diggante ak sëriñ bi mhm. moo gën lépp waaw wax ne la lii cër yi wax lépp jàpp ko mhm. xamme nga sa farata ak waaye nag la lay jëriñ ëllëg ak taalibe lay doon taalibeem gën a kenn amu ko ndax sëñ Modou Moustapha nee na da koo yéem ndax bi muy jógee daaru di jàngi daaru neex na neexit boo xam ne kenn waru fee jóge jàngi sëñ Fallu ne da koo yéem. Mhm. xam-xam bi mhm. ak yar bi ak taalibi gi yett yi damaa xamul ñu koy boolee loolu la wax. Mhm. sëñ Abdoulaye ne man daal damaa bëggoon a gis ko xam Thierno mu wax ma lu Thierno gën a Mahmadan waaw sëñ Basiiru keroog ba mu koy jox Abdou Akim. ak Alaaji ak noo ànd. mu ne ko ñu fi jàngale sax am na jàngalekat yi bari na lool waaye sa melokaan wii laa bëgg ñu mel nii moo tax ma di leen jox. taalibe gi ak yar bi mm-hmm. waaw laa bëgg ñu roy ko ci yow ba am ko mm-hmm. loolu mooy jikkoy sëñ Mahmadan mm-hmm. nekk fi nag ba yàlla jëlee ko fi mu bàyyi fi doom ju baax firndey doom ju baax ji mooy jumaa ji waaw fi fekkoon moo tabax jumaa ji bàyyi fi it baax koo xam ne fi fa bàyyam tegoon tànkam fa la ko teg muy sëñ Moxtaar Mbakke dara lu ànd ak sunna dara lu ànd ak ay caaxaan waxu ci dara mhm. ak koo mën di doon mhm. ndax bàyyam daa wurus kenn mhm. ci ay caaxaan daa wurus kenn ci jubadi moom it mooy jikkoom kon ñi ngi koy ñaanal ñoom ñëpp ñu fi nekk ñu yàgg fi te wér moom ak rakkam yi ak doomam yi mu fi nekkal yëpp di ñaan sëñ moor mi nga xam ne moo tàmbali woon jàkk ji bàyyam bëggoon àggale ko noo ngi ñaan yàlla dimbali ko te taxawu ko te yokk ay leeram te jéggal ko lépp lu jaar diggam ak boroomam te du noonu ñoo ngi ñaan ci barkeb Cerno ci barkeb sëñ Touba ñoom ñëpp it ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu yàgg fi te wér sëñ Moxtaar muy Abdou Lahad muy gone yi Maam Mor Koso yëpp yal leen fi yàggal te wéral leen te may leen jàmm ba li ñu bëgg a lëggéeyal seen bàyyi ñu lëggéeyal ko ko te yàlla musal leen ci saytaane ak ndog yi yëpp waaw ci barkeb Rasulullah salaamaaleykum di dénk taalibe yi nag ne leen nañ fàttaliku mhm. te xam ne taalibe gi rek moo am njëriñ mhm. dangaa ngaa bàyyi sa bopp mhm. dikk ci sëriñ bi jébbal ko sa bopp mhm. mu mu teg la ci aw yoon mhm. yoon woowee mun a teg nag ci nga war a tegu waaw nag mooy li am solo ci nun waaw dañuy fab lépp teg ko fee fab taalibe gi jiitu waaw taalibe nag mooy li yàlla bëgg nga di ko def li mu tere nga di ko daw yaakaar nag sëñ Touba waaw kat sëñ Touba rek la am nit nag bu amee lu kenn amul du ko war a téye nu ko kenn téyewut te ma di la xamal ne la jamono ja soppi ko waaye dara soppikuwut la fi nekkoon ba tey mi ngi fi ku ko wut nañ ko daan wutee da ko am ku jàpp ne daa soppi ko nag wala mënuñu dara wala sëriñ bi mënul dara wala ñi kii lañu yaa ngi juum yow moomee yaa xamul dara waaye sëñ Tuubaa mbiram du dellu gannaaw sëñ Tuubaa mbiram kanam rek la jëm waaw ci ak ci ak nekkam am na ku tubaab yi laaj ne ko waaw sëñ Tuubaa mii na ko mbiram demee mu ne ko ah mbo bopp buy tàkk la rek bu bopp bi jeexee day fay sawar wutaal mboob rek la mboob mboob sawar wutaal mboob la bu mboob mi jeexee rek taal bi day fay waaw kooka sëñ Fallu da ko ne yow de da nga fekke lépp da nga fekke lépp mu toog fi ba fekkee lépp ñu xam ne kon mboob mi luy tàkk ba lu jeex la waaw am na kilifa gu mag sëñ Mourou Moussa da ko ne man day ni nga bokk ak sëñ bi ak ni nga amee xam-xam rek sëñ bi jóg rek nga teggi ko looloo ma jaaxal mu ne ko sëñ Touba daa woote su woote woon ñëpp wuy ko waaye wootewul benn yoon suñ borom da ko tànnaloo mu tànn ña ko neex te boolewuma ci ñi mu tànn kon man defuma dara <laughs> loolu la ko nee ko suñ borom da koo tànnaloo mu dem tànn ña ko neex te booliwu ci waaye sëñ Tuubaa bu woote woon kenn du am kenn kuy topp kenn te wax na dëgg sëñ bi woowul kenn ne la kay jébul amul daara wututub tool mosoo gis fenn fu tool bu sëñ Tuubaa amul sëñ Tuubaa ma déedéet da ngay jéblu kay def tuuti mu defar la waaw wala nga jéblu yaakaar ko di liggéey di indi addiya mu defar la te du la ko laaj itam su laaj kenn dara waaw ceerno mii dégg nga li wax dafa ne yéem naa ko ngir lu ma sa am man la ko jox waaye yéem na ma ngir lu ma jox jox duma ko laaj yéem naa ko ngir lim xam ci araf te jàngu ko waaye yéem na man na xam na lu xam-xam ba bari bari may barul ulóom loolu la loolu la wax waaw kon nag loolu moo fi nekk ba tey ci Daaru si ñu ñaan sëñ Abbas mu yàgg fi fas yéene dooni taalibe ci kanam ñi fi nekkal sëñ Tuubaa ñëpp waaye sëñ bi yoon wi daal dara jóg ci li fi nekkoon ngi fi ku ko jàpp nañ ko jàppee woon da am li ñëpp am. Mhm. ku ko woyofale itam nag yaa xam. man faa la macha allah xëy ma saa wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ah, jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ah damay wax ne man Bawol Ulum ku toog ak moom jërul ngay laaj da nga koy bàyyi rek mu daal di doxal yaakaar naa eh, laaj yi moom day mel ne sax day dindi ak taalibe moo tax dañ koo bàyyi rek mu daal di wax li mu wax rek mooy ni ko ko yittewoo woon di ñaan mu yàgg fi lool te ànd a wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw mbokk yi ba tey ñoo ngi fii ci kër sëñ Cheikh euh, Astou Faye ñu taxaw ak euh, kenn ci njabootam sëñ Moustapha moom sëñ Cheikh Astou Faye mu féete ñu suñu ndeyjoor su suñu wetuk euh, càmmooñ it ñu ngi ci dend ak Serigne Maguette Gueye di wóllëre ci kër gi di taalibe sëñ taw feex Production moo lay nuyu fekk la ci sa bis fekk la ci sa kër ah fekk la ci sa kër waajur bu baax wi nga xam ne Serigne Cheikh Astou Faye yaakaar naa jotaay bi ñuy jotaay ak moom léegi rek. Euh, jotaay la boo xam ne ci ci ci dimension bu yéemee yéemee yéeme ci la waxtaan ngay kenn ci njabootam ah ñu di la tàllal suñu micro di laaj ana yan kàddu ngay sànni ci bisub euh, koso bi nii. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu leen nuyoo sargal leen di wax ne lii moom lu rafet la mënuñu lu di ko rafetlu ndax euh, ñun amuñu lu suñ Mahmadan ndax suñ Mahmadan daan wax naan ñaari mbir am. ñaari mbir yooyu nag ku ci ñëw amatoo fayam muy benn bi mooy ñaari bisaam muy bisum naqar ak bisu bànneex benn bi bu si ci nit ñëwal rek amatoo fayam kon jàpp naa yéen amuñu seen fay euh, ginnaaw bi ñu bokkee lépp nag bokki nekk ay taalibe bokki nekk ne yarandoo fii maag sëñ maxtaar ne yaakaar naa fekkati na fi lu bëree bari yaakaar naa dund nañ lu bëree bari maag moom kon jàpp naa lii moom lu rafet la ndax ñun amuñu lenn lu du sëñ Mahmadan ndax fi leen yaroo fi lañ jànge fi lañ defe lépp ba am li ñu am tey kon lii ngeen def ñu ngi koy rafet lu baax a baax yaakaar naa ko tudd sëñ Mahamadan taalibe moom eh, ci moom la yamoon yaakaar naa doomi Serigne Touba yeeg ñëpp yéemoon na leen ci ak taalibeem ak muritam mu mel ne sëñ Basiru joxe na ci ay misaal yu bare bare bare ak nu ne ñu waxee ko yéen ñi nga xam ne yéenay njabootam eh, ana yan taxawaay ngeen am ci jàngal ndaw ñi ak taalibe ak jàngal leen xam-xam ndax fii it ku ne xam na ne baro bu sàkkukaay xam-xam la woon waaw loolu moom yaakaar naa gone yu jóg judd sax xam nañ ko ndax yaakaar naa ak taalibe moo ko fi indi ndax borom daaroo ko fi yebal na ko ba àggee nga dëkk de Kosode day dëkk boo xamante ni sëñ Tuubaa moo ma digal ma sanc ko muy dëkk bu ma fonk te ku ma fa yebal rek mu metti mettiwaay bi tax nga daw dama bëgg nga nag yow nga ñëw dem toogal ma fa mu ne ko boo ma ñaanalee dinaa fa toog loolu si ndigal loolu la la la la ñëw sanc daaru koso nekk fi nag nekkin bu rafet ñëw boole fi liggéey ak jaamu yàlla daana wax na képp ku la mën a jur te jaamuwoo yàlla boo dee da nga ko borom waaye bu la àdduna bépp doon jox tamit te liggéeyoo yaa ko yoru daraayam kon ci ci loolu la nekkoon nekk ci diine nag jàngale moo daan jàngaleel boppam moo day day day day jël eh, dong yi ànd ak ñoom ba ca tool ya mu ne leen ku ci mën a ku ci mën a boole koor gi ak liggéey bi nga boole ko ku ci mënul nga bàyyi liggéey bi te dem ci koor gi te xam ne maanaam santaana suñu borom moo gën a màgg santaana doomu aadama loolu lim daan lim daan veillé la ginnaaw bi loolu tamit njàngale mi moo ko jëloon teg ko ci loxol boppam daan waxuma la dara waaye sëñ Mahmadan ak njàngalem du du ci téere yi dong boo ñëwee ni muy toogee ak ni muy comporté woo rek maanaam da nga ci jàng lu bëree bëri kooku mooy sëriñ Mahmadan jëloon lépp nag def ko ak taalibe doomi sëñ tubaay yi seere ko sëñ Fallou seere ko sëñ Modou Moustapha seere ko sëñ Cheikh Gaynde ma seere ko sëñ Abdoulaye seere ko bëri na doomi Serigne Touba yoo xamante ni lu ci ëpp fii lañ daan ñëw daan ko daan ko ko seet si fii daan ko gane si soxna may daan wax ne soxna may bu masaa ñëw si kër gi wala sëñ Abdou ga ak mat ga ak yiw ga du sol mbaxana du sol daal ba soxna si génnaat kër gi wala sëñ sëñ sëñ Abdou Khadre kon loolu mooy ak taalibe kon jàpp naan ñun ñi nga xamante ni ñoo yoroo ci ak keppaaram ñun ñi nga xamante ni ñooy ay taalibe ji di roy ci moom war nañoo roy ci moom ak taalibe ndax jàpp naa ne lu ko liggéey mënu mayut mhm. maanaam leneen du ko may jàpp nañ lépp lu mu war a mën a am ci àdduna rek liggéey moo ko may jàpp nañ lépp lu mu war a mën a am ci Sëñ Tuubaa tamit ak taalibe ko koy may kooku mooy Cheikh Mahmadan kon xam naa euh, damay jox waaye kaddu euh, Serigne Maguette Gueye euh, sëñ Maguette ana lan mooy sa teewaay fii ci barab bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñoo ngi lay fay mhm. dana jafe nag mhm. topp ci ku mel ni sëñ Moustapha mi di ci sànni ay kàddu ndax euh, li mu wax dara mënu cee tegu waaye pàkk bi euh, ñun jamononte wuñ ak sëñ Mahamadan waaye dañu ñëw fekk sëñ Mamor euh, sëñ Mamor jël fa sëñ Mahamadan tegoon tànkam mu teg fa tànkam muy jàng ak jàngale yar ak yiw te dëkk bi dëkk bi koo fi gis mu jóge fi tànneef la ndax ay mag ñu bari jaar na fi ay dong yu bari jaar na fi mhm. waaye buñ ne laa koso la dëkk mhm. danga nga cey mën a waat mën caa wàcc loolu nag euh, doy na sëkk mhm. ci ci seere ci pàkk bi ndax ñun dañu doon ay taalibe yoo xam ne si ne sëñ Tuubaa rek lañu yaakaar waaye dëkk bii di koso maanaam képp ku sañoon fi nga yewoo guddi di fi yewoo bëccëg macha Allah dëkk bi nag euh, borom daaru mu ngi ko sancoon ci ndigalul euh, Cheikhul Khadim waaye borom daaru moom mu sanc ko ci ndigalul Cheikhul Khadim te réewut sëriñ Mahamadan dafay liggéey ndax li ma bëgg a wax mooy maanaam fii nii rek la mën a mel. Euh, rek kese. ndax bari nañu am nañu sëñ borom daaru mu si yabaloon. waaye dafa dañoo mujjoo fa mujjoon gent. waaye sëñ Mahamadan bi ñu ko fi dëxalee. dafee nekk ci jàmbaar gi ak ngor ak muñ. Euh, li mu ci gën a neex nag mooy muñ gi. ndax koso lu ne nit dañ na ko fi. damaa dégg ci menn mag mu ne am na ñu tëdd ci almeeri ku leen yeewoon di leen koso am na ndox ak courant. maanaam mm-hmm. dañuy jóg taxaw kon loolu moo lay xamal bi Euh, tumuranke mhm. yàgg na fi euh, jàmbat yàgg na fi waaye nag dafa mel ni mhm. sëñ Mamor indi euh, na fi lu bari mhm. sëñ Maxtaar mi ñëw feddali ko kon sëñ Mahamadan fa mu tëdd xolam sedd na bég na ci ñoom jërëjëf wa salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon xam naa ne dañuy daal di yemale fii suñuy kàddu di leen ñaanal jàmm te leen ñaanal mbokk yi baaxoo di ànd ak Tawfekh Production ñu ngi fii ci Daaru Koso ba tey Euh, nekk fii ci kër Serigne Cheikh Assou Faye ñu toog ak euh, doomam euh, Serigne Mahmadan Mbacké mu tuddee ko Serigne Mahmadan Serigne Mahmadan gannaaw bi la Tawfekh Production nuyoo di la sant ana yan kàddu ngay baaxee mbokk yi nga xam ne ñooy baaxoo di ànd ak. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg delloo njukkal borom Daaru Muxti ah, jëmm jooju ngay laaj jëmm la joo xam ne dundam gépp mi ngi ko jeexaloon ci ragal yàlla ak toppi ndigali sëriñ ndigali suñu borom yi jëfe li nga xamante ne moom la fi sëriñ Touba bàyyi muy li liñ donn ci sëriñ bi waaye nag yàlla da koo defaloon tawféex yi mu nekk nit koo xam ne daa jafe lool ci nit ñi ndax sëriñ Fàllum sëriñ Touba daana wax ne yi mu boole jafe na fu muy daje xam-xam ak taalibi akub yar nee na ñett yi li muy ànd bëriwut sëñ Abdou Lahad daana wax ne sëñ mahmadan yowmal xiyaam lay nangu laay laay nangu ko ëpp cër ci suñ borom ndax boo xoolee ñim dajale woon fii di leen jàngal muy njabootuk sëriñ Tuubaa gi ak njabootuk boroom daarul moxti gi ak taalibeem defaloon maanaam àggoon na ci ne balaa ñuy sa satoo ci ci noo jëfandiku sax ñi satoo sëñ Tuubaa dañuy jëfandiku ba noppi kon loolu mooy gëm sëñ Tuubaa ak doyloo ko yàlla defal ko loo xam ne it bariwut ñu mu ko defal ndax keroog bi nga xamante ne mi ngi sanc dëkk bi bu ko borom Daaru Muxti sancee ba woolu ko di ko fi di ko fi di ko fi toogloo daf ne ko ku la mën a jur li la suñ borom digal na nga ci nekk na nga nangoo jaamu yàlla na nga nangoo liggéey ku la mën a jur ci àddina te nanguwoo jaamu yàlla boo demee man xam du la jariñ dara loola man nit mën a jox ci àddina nanguwoo liggéey du la wa du la jariñ dara te ku ne xam na ne bi muy ñëw fii ñaar yooyu rek fi mënoon a nekk liggéey ak jaamu yàlla ci la fi nekke woon ak jàngal jàngale njabootu sëriñ Touba bu bari fii lañ xam loo njabootu boroom Daaru Muxti bari fii lañ jaar moom nag day jëmm joo xam ne dafa am tawféex ba tax bis bi biñ ko ñu wooteel ko ko. muy taawam bu baax bi nga xamante ne moo fi jóge bu yàggu di sëriñ mamoor yàlla na yàlla yokk ay leeram di jàmbaar joo xamante ni fu dëkk bi àgg tey moom la war nañ koy fàttaliku bu baax di ko ñaanal rakkam ju baax ji di sëriñ Moustapha moom it noonu nañ koy fàttaliku bu baax di ko ña di ko ñaanal di ñaanal jëmm ji fi nekk di sëriñ Maxtaar mi ko fi wutu tey mat ko sëkk ndax fa sëriñ Maxamad dañ tegoon tànkam rek fa la ko teg kenn déggu ko ci dara kenn déggu gisu ko fenn bëggut dara kenn xamul ak bëggam lu yàlla ak yonente bi ak sëriñ ñu mel noonu nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñooy kenn luy téye yoon wi sëñ Maxtaar mi daa bokk ci kenn yu kenn yi téye yoonu murit kon ñooñu dañ leen a war di bàyyi xel di leen ñaanal. dafa mel ne loolu cosaan la fii ci dëkk bi ndax sëñ Mahmadan boo xoolee njabootu sëriñ Touba gi dafa mel ne ni ñu ko doon nemmeekoo ci wàllu mbokk bëgg mbokk fonk mbokk loolu dafa mel ne feeñ na sëñ Mamoor gis naa ci archive am yi ñu ma doon wan euh, foo xam ne dèjà bind euh, ni mu bokkee euh, ñu baree bari ci mamaaram mu bind ko sonni ci lool ni mu ko bindee boo ko xoolee ni mu ko planifié danga xam ne kii euh, ñi mu bokkal ñor nañ ko lool taxawaay boobu it. waaw waaw waaw loolu yéen foo leen ci toll. waaw mbokk googu it lu am solo la ndax moom da ko daan dundal boo xoolee ci kër gi it boo xoolee ñi fi ñi fi meññ muy suñ maam Mor ak sëñ Maxtaar ñoom ñëpp jenn maam ji la ñoom ñëpp ñoo bokk benn maam loolu it ma nga tàmbalee ci borom Daaru Muxti bi nga xamante ne moo waral lépp euh, ndax boo xoolee. sëriñ Abdul Khodos sëriñ Modou Habib ñoom ñoo ñëpp daanaka ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo bokk lépp wëlbatiku seeni soxna yi daanaka ñoo bokk lépp kon loolu cosaan la soo xam ne loo joo xam ne yàgg na fi waaw moom it mu suuxat ci jëmbat ci lu bëree bari saa borom nag defaloon ko tawféex joo xam ne guddutu fan ci saayir waaye nag gudd na fan ci baati ndax jëfam du fi jóg ba mukk waaw ndax wax dëgg yàlla ku xool ñii mu fi bàyyi tey ak njabootam néew nañ lool waaye jafe nañ ci yoon wi it ndax ñii mu fi bàyyi amul kenn koy dox ba dégg ñu ne sëtub sëñ Mahmoudan dégg naa ko fii muy def nangam wala muy def lu dul lool nekkuñ ci lenn lu dul siraatal mustaqim la leen seen maam bàyyi woon kon loolu tawféex la suñ feerte la ñu nit ñu leen di ñaanal saa borom taxaw leen bu baax a baax sa kaddu waaw xanaa sant euh, suñu borom subhanahu wa taala sant Serigne Touba sant borom Darou Mouhty di ñaan it mboolem taalib yi nga xamante ne bàyyi nañ seen di te yëpp ñëw ci bis bi mboolem li fa indi ci aju suñ fajal la ko lépp loo xamante ne indi ko fi ci yàlla sëñ Touba tàggaleek moom di leen xamal ni bis jëm euh, dëkk bi ñu ñëw ku fi ñëw mën ngaa rafet njort ndax borom Daaru Muxti yàgg na fi lool dëkk bi yàgg na fi lool ku ne fekk na ko fi bari na ñoo xam ne yanu nañu yanu yoonu murit fii lañ ko yanoo ku mel ne sëriñ Abdou Lahad sëriñ Amsatu Jaxate yebal na ko fii ci daaru ci fii ci daaru kosu mu fekk fi borom Daaru Muxti yàgg na fi lool keroog ba mu fi jógee la xam ne dana fi nekkal sëñ Touba kon bari ñu yanoo yan bi foo xam ne ci yoon ci yoonu sëñ Touba xam ne dëkk bi lañ ko bari nañu ñu xam lu nag ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk tey jaar na ci dëkk bi may wax ak yow kon fii dëkkub cosaan la ba ku fi dugg rek sa xel mën naa dal kon ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kooku moo nekkoon sëñ Mahmadan moom Serigne Cheikh Assou Faye yaakaar naa waxtaan wi ku dégg ni mu ko doxalee sa xol dana sedd te indi na lu bëree bëri ci taarixu dëkk bi indi na it euh, ay jàngat ak taxaw seetlu lu bëree bëri ci Serigne Mahamadan ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te ñu ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu